asalaamaaleykum chers internautes solution TV ñu ngi leen di nuyuwaat bu baax a baax di leen jaajëfal ci ni ngeen ñuy toppee chaque fois rek ci suñu ay programme di leen wax ne leen dal leen ak jàmm seen émission bi lii di émission des émissions maanaam daal di waxtaanee émission yi nga xam ne am nañ mu nekk ab mbir mu am solo boo xam ne rek dañ koy daal di euh, waxtaanee waaye nag duma ci wéet benn yoon dama koy séq ak euh, saama ma daal di koy jox kàddu gi rek mu daal di nuyonteeg ñuy bàyyi xel saa maa leen nuyu Eh, <clears throat> Ndeya ñu ngi lay fay di am mbégte ak kontaan ci yow eh, di nuyu mbokk internet yi nga xamante ni ñu ngi ñuy teewlu nekk ci biir réew ak bitim réew fu waay mën a ne. di am ci ñëpp mbégte ak kontaan di nuyu bu baax xalifa eh, général des mourides sëñ Mountakha di ko ñaanal mu yàgg fi tànd ak wér. waaye di nuyu di ziar sunu sëriñ sunu xarit sëriñ Sidi mu sëriñ Abdou Lahad ñu koy ñaanal Mbacke mu yàgg fi lool te ànd ak wér. ko ziar bu wér. te wax laay mu ñëw taal ju kilim yi dafa mel ni daf ñoo fàtte toll ni ba noppi nag ub ñu ñu ne ràpp <laughs> waaw macha allah mm-hmm. macha ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax a baax ba léegi rek uh, ndiki uh, tey uh, dinañ waxtaane ci Badara Gadiaga kàddu yi nga xam ne yëkkati na ko foofu noonu ca TFM waaye tamit ci <coughs> Abdou Bara Dolly Mbacké kàddu yi nga xam ne yëkkati na ko foofu noonu ca Seneweb tamit dinañ ci daal di ñëw ak Mame Boye Diao kàddu yi nga xam ne yëkkati na ko foofu noonu ca Sene People yi tamit dinañ ci daal di ñëw ci anam goo gën a uh, yaatu waaye nag dañu ñëw wala saa ñu dooree ko ci uh, Mame Boye uh, Diao waaye laata loolu rek ñu daal di dem déglu élément bi suñu paree daal di dellusiwaat ci plateau bi daal di koy yaatal. en tout cas euh, même bu dee teyu ko actionnaire la waxuma la parce que nit tamit doo jël euh, nit jàkkaarlook moom ay fukki at lu ne ngeen tegante ko ngeen ne na koy servir sur plateau d'argent en pouvoir gëwuma loolu. Euh, bu doon euh, tu allais me permettre l'expression dama ne naan perversion mënul weesu loolu mënuma gëm ni moom mënoon na jàppale ñooñu pour ñu falu non mais euh, même sans faire exprès dafa nekkoon seen directeur de campagne et puis pas moom rek ah vraiment l'appareil Benno a mal géré le processus Pastef Pastef dafa ñëw indi discours ñun yi nga xam ne ministère en fait fonctionnaire lañ on le connaît c'est les politiques publiques mais au ñu tontu leen sur les questions de politique publique on était dans l'émotion ku wax ci waxu redressement fiscal doo expliquer Sénégalais yi lu redressement fiscal dama doon fàttaliku bu ñu taxawee Ousmane Sonko mënoon taxaw ne wuy nit ki fayul impôt rek ñëpp xalab waa ji mais mënoon nga ko wax ni si c'est ça tous les Sénégalais sont des délinquants fiscaux parce que loolu ñun mooy mooy sunu liggéey est-ce que yaa indiwaat les arguments pour répondre sur les questions de politique publique ñu jël ko saa yu waxaan wala ay nitam ñu saaga xas après mu dem ci yeneen sujet yi nga xam ne bëgguma ko aborder fii qui touche la dignité humaine donc victime nga jóge foofu ñu exacerbé loolu avec les événements de mars 2021 avec ceux de juin 2023 donc nga yóbbu leen kaso ñu dem ci processus électoral nga tere un candidat c'est-à-dire quelqu'un qui a toujours dit man de mënu leen ma teg benn daan ci wàllu luubal reyul kenn sàccul kenn taxaw nga jël ko ci ay wàllu diffamation nga tere ko nekk candidat yu une élection présidentielle donc finalement les sénégalais ont dit xëy na kii moo nekk ci dëgg son candidat qu'il a choisi il était en prison nga ñëw libéré ko en pleine campagne électorale nga indil ko beneen regain alors que ñun avant même la campagne on avait dit na ko libéré parce que je considère que si les Sénégalais avaient écouté Bassirou Diomaye Faye un mois ou deux xëy na am na ñi koy tànn parce que ñoom gëmoon nañ seen projet mais am na ñi nga xam ne dinañ doon am xel ñaar mais après dafa nekkoon benn mërirandoo bi nga xam ne euh, ful bi dem na ñëpp ànd ci. Euh, candidat yi décalé ñëpp tam ba ma enfin mu nekkoon benn vague quoi mais loolu yëpp li ko indi mooy. benn stratégie bu nga xam ne c'était pas la réponse à apporter à quelqu'un qui était dans l'opposition et qui vous faisait face boo ko xoolee tuuti bu ma koy comparer da ngay xool les extrêmes en Europe ni ñu leen di ni ñu leen di tontoo dañ leen di mel ni lu leen di xas wala lu leen di saaga boo xoolee le le rassemblement national à chaque fois que le gouvernement y répond da leen di xas vous êtes des racistes wax leen ay wax yu ñaaw mais loolu day gën a conforter seen position te ñoom dañuy continuer di màgg c'est ce qui a amené quelqu'un comme Bolsonaro au pouvoir c'est ce qui a amené euh, Trump au pouvoir et c'est qu'aujourd'hui il faut savoir donner des réponses merci beaucoup euh, Modou ñu lay euh, jaajafal bu baax a baax moom euh, Mame Boye Diao déglu ngeen ko bu baax ca la nga xam ne rek ñëw na ko ci wàllu racisme bi nga xam ne le président doon na ko taxé ñi nga xam ne rek ñoom ñoo nekkoon ci opposition bi loolu moom moo leen indi ci li xam ne moom mooy au pouvoir mais aussi am na lenn loo xam ne xam naa ne peut-être Modou daf ko fàtte woon daf ko fàtte indi mooy que Mame Boye ba muy wax ci tiitaange bi nga xam ni ñii am nañ ko ndax dañoo war a changer li nga xam ne rek moom mooy suñu wàllum institution saa nga jàng jàngatee kàddu yi. waaw tout d'abord di wax ni mambooy dafa wax wax coo euh, xamante ne. man defe naa ni euh, APR war nañ ci jàng ak l'opposition bi war nañ ci jàngaat. parce que dafa wax ne bi nga xamante ni Ousmane Sonko mi ngi indi ay débat yoo xamante ni bi yu technique la di expliquer. tontu wuñ ko fi ñu ko war a tontoo. mais dañ ko indil ay mbir yoo xam ne ay mbir yu xeebu mm-hmm. jàpp ni foofu lañu war a nekk pour gàllankoor ko pour fexe du am li nga xam ni moom la bëgg jéem koo ragalloo nit ñi mm. te jéemuñu ko tontu ci limuy muy xamante ne bii mooy question yi muy teg ci table ji sénégalais yi di ci bàyyi xel bu baax a baax mm-hmm. mais politiciens yi ñoom dañuy jël loolu puus ko nale indiwaat beneen discours boo xamante bii du nekk tontu li nga xam ni moom lay def ci penc bi. loolu nag muy loo xamante ni bii état bi juum nañ ci. Hmm. Eh, juum nañ ci ba mu gi ñu ne nañ ko jaxasee kilifa diine yi parce que yooyu da daan dox ay jamono boo seetee lu ku ci mel ni Mamadou Dia Senghor jaaroon na moom ak moom foofu. Hmm. pour nasaxal ko eh, tey daf ci réussir. ok donc nag defe woon nañ ni loolu ba léegi mi ngi dox. mais ndekete loolu jeex na parce que jamono ji communication dafa gën a yomb ko jamono jooju parce que li nga doon waxal nit maîtriser li nga xam ne mooy média yi mhm. am say nit ñoo xamante ni bi tey ñooy nekk ci média yi di la defalal li nga bëgg léegi loolu moo amatul monopole boobu amatul mhm. te Ousmane Sonko moo ko dindi <coughs> waaw monopole euh, doxul yor média di ko doxal loolu existe su depuis que internet ñëw ba nga moo tax boo gisee Pastef seen communication lu ci ëpp ñu ngi ko jaare ci li nga xam ne moom la wax réseaux sociaux yi parce que su fekkoonte ni bi du réseaux sociaux yi peut-être mën na ne parce que président Macky Sall tegoon na ay jéego yoo xamante maanaam bu du toon ak réseaux sociaux mhm. euh, tey jii lii du ne maanaam li ñu fi ñu toll nii tey mhm. situation bi kon du am parce li tax du am fexe woon na ba li Ablaye Wade li ko rëccoon moom daanaka fexe woon na ba média yi mu téye leen parce que Ablaye nag boo seetee euh, média yu bari dañ ko xeex mm-hmm. presse bu bari dañ ko xeex boo seetee ñi nga xamante ni bii ñoom lay wax ay ñoom Madiambal boo gisee Macky bi mu faloo journaliste yi dañ ko wër donc téewoon na média yi ci loxoom mais avec l'arrivée réseaux sociaux yi léegi loolu mënatu la ne. léegi nag loolu mooy li nga xamante ni bi nag moo tax sénégalais yi nag fa lañ doon dégloo. Hmm. di bàyyi xel bu baax a baax. Eh, ki nga xamante ni kii moom la ñuy wax moom it mu koy utiliser bu baax a baax. di gën a jàllale li nga xamante ni bi moom mooy ay gis-gisam ak xalaatam. Hmm. boo seetee eh, dañu dem ñoom dañoo lajj loolu ba tey ñii jël nguur gi ñu bëgg a nekkaat. ci loolu. Eh, ci beneen sens boo xam jamono ji nga xamante ni waajaa ngi commencé. di teg ay jalons ñi ngi commencé di liggéey le président Diomaye et le premier ministre Ousmane Sonko. léegi ñoom ñi ngi wax li romb maanaam fi ñu waroon a tontu. <laughs> Euh, Ousmane ak fi ñu waroon a tontu Ousmane Sonko. léegi lañ koy soog a commencé di ko tontu. ok maanaam naan ko wéy projet bi li nga ci wax amul. ak kii te fekk ne xamuñ ñi. léegi waa ji mi ngi ci période jëf nekkatul ci période wax. maanaam bu nit ki rombee. li ngay wax noonu maanaam mi ngi ci période jëf yow yaa ngi ci wax <laughs> moom bi mu waree wax wax na mais yow tontuwoo woo ko woon ci li mu la doon wax léegi nag mi ngi war a jëf léegi nag nga bëgg a dellu si nag ci li nga xamante ni mooy kii naan projet bi amul dafa nax sénégalais yi ci wati ba di dóor <laughs> ci loolu lañ nekk ñi ngi nekk ci naan dafa nax sénégalais yi yëf yi warutoon a demee nii et cetera et cetera mm. pendant ce temps sénégalais yi nga xam ni ñoo ko fal ñoom mm-hmm. euh, am nañ satisfaction ci li nga xam ni mooy jéego yi muy teg te ci jéego yooyu nag ñoom opposition parce que opposition man damay wax ne opposition dafa am njariñ. Mhm. mais nag pour mu gën a am njariñ dafa war a muus parce que bu muusee rek jariñ réew mi. Mhm. parce que tey ci yi euh, président Diomaye ak le premier ministre Ousmane Sonko di teg ci la opposition war a taxaw. voilà di xool ci lii lan la ci wax. léegi nag loolu dafa teel. mais matière amagul waaw xam nga ñi ngi soog a teg. Mhm. léegi nag ñoom dañu bëgg a wane kut ko kut ni nekk nañ fi boo seetee sax la plupart ñi nga xamante ne bi ñooy wër di wax duñu ay voix autorisées euh, jàpp naa ni opposition ñoom commencé gu ñoo opposé wu mais seen ñoñ ñi nga xamante ne bi ñooy xale yeeg yooyu ñooy nekk ci réseau sociaux yi commencé di def loo xam ne defe nañ ñii la parce que euh, dañu amul ku leen liir niital yoon wi moo tax ñoom it ñu créé ay yoon moo gisee fi mu toll nii armée mexicain lañ mhm. ñii dañoo jaar fii ñii jaar fële kenn respecté wut li nga xamante bi mooy yëf yi boo deful ndànk sax bu ñu demee pour war a ñëwaat dajalewaat seeni ñooñ mën na xaw a difficile ci ñoom. parce que mhm. du ñu xam kii kii. mais ñi nar a opposé wu aussi tamit dina metti bu dee nii lañ ko nar a jàppoo. waaw opposition bi euh, bon mën na bañ a metti parce que bu ñu xalaatee. Mhm. mën nañu euh, parce que man damay wax ne réew bu amul opposition baaxul. man dama bëgg opposition bu yeew. Mhm. opposition bu bien. bu radical nekk ci réew mi pas radical sax mais <laughs> <laughs> mais bu yeew. boo xamante ni. Uh-huh. dina jariñ quoi parce que day jariñ. parce que opposition day jariñ. Uh-huh. parce que man jàpp naa ni président Macky Sall euh, bu fekkoonte ni dem ver xaabaabulut ci côté bi mu nekkee. depuis que mu sentir ne Ousmane ko mii opposant la. boo xam ne mu ngi koy loolu mënoon na jariñu ci moom. Mm. mais boo seetee jariñu wu ci quoi maanaam kut ko kut naa ko nappaaje naa ko kii. jàpp ni doole ji nga yor mën na def lu ne. te fekk ne doole ji nga yor dafa am lu mu mën am lu mu mënut. doole ji nga xam ne moom la Ousmane Sonko yoroon moo gën a rëy doole ji mu yor moom parce que bu fekkonte ni doole ji mu yor mën na nappaaje Ousmane Sonko kon doon na ko def mais hmm. mënutoon a ne mais loolu xamu ko woon loolu la gëmul dernier moment la ko xam ay ñoñom loolu lañ ko gëmloo ah, ay ñoñom loolu ko gëmloo hmm. mais euh, njiit danga war a ëpp gis-gis parce que li ngay xam say ñooñ xamuñu ko léeg-léeg mën nga xam lu bari loo xamante ne bi duñ ko xam hmm. parce que yow xam nga ni am na foo xam ne jaaroon nga fa ak Ablaye Wade leer na la ni bi ngay taxaw di wax Ablaye Wade ne ko boo defu ndànk ñu mars jubal pale boobu leeroon na la ni yor nga doole joo xamante ni bi gisoo du woon armée du woon gendarmerie du woon polis mais yëgoon nga ni askan wi ñi ngi ak yow. askan hmm. dara mënu koo dégg. loolu nag bu tuxoo da ngay war a xam ni lii tuxu na mi ngi ci keneen. nga respecté ko loolu nag mooy njuumte bu nga xamante ni def na ko voilà ba ci biir kàddoom tantôt moo ngi koy wax ci tiitaange bi nga xam ne nee na Ousmane Sonko ak euh, le président Bassirou Diomaye Faye dañoo ragal calendrier républicain bi moo tax nangu ñoo laal li xam ne mooy suñu wàllum institution te ak projet bi nga xam ne jaay nañ ko askanu Sénégal faw ñu andi ay coppite ci li nga xam ne rek moom mooy euh, fonctionnement wa suñu wàllu magistrature ak li mel moom jàpp na ne Ousmane Sonko ak Bassirou dañ ne maanaam dañuy def comme si amuñu jot fekk am nañu jot dañoo ragal donc moom moo leen jàpp. non xam nga loolu mooy loolu waxu opposant mais bu gisee mi ngi gis ni ay jéego ñu ngi koy teg. président mhm. Diomaye li mu expliqué lu leer la. faaw ñu waxtaan pour soppi li nga xam ne mooy yëf yi. Mhm. te loolu defe naa ne ñu ngi ci. te gis nga ay dogal yoo xamante ni bii ñu ngi koy jël. Mhm. yoo xamante ni bii jàpp nañ ni ay dogal la yoo xamante ni bii eh, bokkoon na ci liñ bi nga xamante ni bii rek. Euh, def nañ ko mu jëm ci littoral beeg yu ni mel am na yenn dogal yoo xamante ni bi mi ngi commencé jox. ok yoo xamante ni bi tey euh, parce que bërki dem rek yaa ngi dégg commerçant yi ñu ngi jooy nee nañ xaalis bi ñu daan génne. pour di dem loolu mënatu ne. Mhm. am na yu bari yoo xamante ni bi mi ngi tegu ndànk-ndànk maanaam yëf yi ay jéego yoo xamante ni bi boo koy teg. da nga mm. koy teg ndànk-ndànk. ci kanam tuuti nit ñi dinañ commencé. di gis. en tout cas ñu ngi ci yoon bi. voilà waaw. kon nañoo yàkkamti rek moo waral ñu daal di mm. euh, wax loolu. lii nag mais uh-huh. au moins da lay jéem a bëmax. voilà pour nga tàbbi ci pax mi boo ci tàbbee nag mu ne ah léegi nag loolu nag du nga ñoom ni ñu ko bëggee. buñ ko ñii defee rek du baax. ndax maa ngi doon dégg nga wax ci wàññi wàññil wàññil mm-hmm. wàññil. waaw waaw voilà. ñoom niñ ko bëggee. Mm-hmm. ñii duñ ko defee noonu. ok parce que ñoom niñ ko bëggee ñoom bu ñu amoon li leen gënal ñii duñ toog fi toog. Mm-hmm. kon boog ñii duñ leen déglu ñoom lépp lu ñu leen conseil rek nañ def la ca des. ok voilà mu nekk kàddu yi nga xam ni euh, Mame Boye euh, Diao moom moo ko dal di euh, yëkkati kenn ki nga xam ne aussi yëkkati na ay kàddu jëmale ko ci wàllu appel à la candidature bi moom nag jàpp na nekk ne kat ab slogan dong rek lañ ko daal di def muy Badara Gadiaga ñu daal di déglu élément bi daal di dellusiwaat ci plateau bi. n'importe quoi loolu taxawul li taxaw mooy ils ont une chose am na reniement am na revirement dañuy taxaw ci loolu ñu pointé ko bërki Dembo Ndiaye bi ñu tegee un gouvernement ñu xool ko muy un gouvernement de technocrate et beaucoup yoo xamante ni dafa wuyu ci profil mais dañu ko wax bi ñu tegaatee un autre ñu gis attelage yu DG yi ñu ñu woon appel à candidature defuñu ko c'est un reniement c'est un revirement par rapport ak discours bi ñu waxoon politique yi luñ la mës a wax yu ci bari dañ ciy génn mais loolu loolu lañ bëgg mu taj Ousmane Sonko moo jàngal sénégalais yi nii lu bëri ñu leen doon wax duñ ko respecté dañ leen di nax kon ñun waruñu toog di gëm ni ñun dañu war a gëmal askan bi ni loolu garaawul politique yi danañ leen wax yu bëri yoo xam ne di préparer les sénégalais à ce que yiñ leen waxoon yu ci bëri mën na dañ mais comme c'est pas grave ko c'est gravissime il faut sanctionner positivement sanctionner négativement il faut avoir ce courage quand mais à approuver le convenable condamner le blâmable on était là la semaine passée pour magnifier le gouvernement et tout ça quand on voit ñu ni ñu appel à candidature ñu déglu ko wax waxaat waxaat ko ci ay plateau yu bokkul muy lu mu gëm mu ni appel à la candidature moi je suis d'accord avec Malal j'ai un problème avec la loi mais même kon dama li may teg su loi bi pareil je reprends tout le monde pour compétition parce que mën naa am sénégalais bu la gën yow mi ma fal c'est vérité mais certains yéen mais attends port autonome de Dakar RTS euh, aéroport prenons ces trois rek trois rek non foofu rek trois mais dëkk boo koy doon coup d'état par exemple tey rajo baak télé ba ngay dem jël tëj port ba tëj aéroport ba loolu lu ko ëpp solo dafa am amul lu ko ëpp solo c'est un reniement waxoon nañ ni dañuy def appel ak candidature ci post yooyu defuñu ko loolu mooy dëgg. léegi nag ni ñu defee lu baax démb ci gouvernement bi ñu xool attelage bi rafetlu ko noonu la ñuy xoolee lii ni lii. c'est des récompenses politiques la. ñi ñu fal nag mën nañ la fal ci récompense politique nga dem. Ah, merci beaucoup mu nekk Badara Gadiaga ci appel à candidature bi la daal di ñëw ku ne xam ne Ousmane Sonko yëkkati woon na kàddu jëm ca boobu leen mbir eh, ñu gis nomination yees yi mu juróon polémique Badara ci loolu la daal di ñëw nan nga jàngatee eh, kàddu yi nga xam ni Badara Gadiaga yëkkati na ko. waaw man de par exemple damay déglu ñoom Badara Gadiaga mm-hmm. mais damay wax ni euh, Sénégal am na ñu bari ñoo xam ne ñu ngi tëdd ci seen kër. suñu mm-hmm. borom may leen xel ak xalaat. Euh, ñu toogoon defe ni politiciens yi ay extraterrestres lañ. Mm-hmm. mais ñoomit il faut ñu wàcc ci langue gi pour ñu mel nii mën a dem retraite parce que li doy waar. mooy ndekete ñoom li ñuy wër di wax yépp xamuñu sax yëf yi naka la war a demee xam nga mm-hmm. loolu nga xamante ni moom la président Bassirou Diomaye Faye wax na ko comme ni ko Ousmane Sonko waxee maanaam mu mm. nekk loo xamante ni bi mu ngi ci seen projet prog ci mm-hmm. projet bi mm-hmm. Ousmane Sonko wax na ko fu ne président Bassirou Diomaye Faye ni ko Ousmane Sonko doon waxee mhm. noonu la wëree woon moom ci plateau yi wax ko mais li ngay wax mhm. fal nañ la dafa am yoo xam ni dafa jàmp ci saa si dafa am lu mën a xaar am lu mënta xaar mhm. te dafa am loo xamante ni bii buñ ne lii de ndayaa moo ko def ak lii de réew mi moo ko tëral muy solution boo xam mbir moo xamante ne bi réew mi nii la ko bëgg a tëralee mhm. ba ëllëgee kii ñëw mu tudd Ndaya wa ilaa mu tudd ab laay wala mu mhm. tudd keneen ku mu mën a doon nii lay doxee loolu dafa am fu mu war a jaar te ci diggante bi ku ne xam na ni assemblée nationale ginnaaw bi ñu falee ba noppi ka nga xam ni moo fay majorité fi mu toll nii du ñi nga xam ni ñoom lañ dénk ñu nekk ci bopp réew mi kon yëf yi dafa am nu mu war a demee pour ñu yegg foofu président Bassirou Diomaye Faye ak premier ministre Ousmane Sonko wax na ni mhm. bi muy wax dafa cité ay dëkk yoo xamante ni noonu la ñuy doxalee mais dëkk yooyu dañoo fexe ba loolu mu nekk ab loi boo xamante ni bi jaareel nañ ko fa mu war a jaar nga xam ni tey Alassane watara bu jógee fa nga xam ni fa la jógee maanaam kay ñëwaat di nekk président balaa muy fal kenn ca domaine ba impôt domaine ca fële nga xam ni moom mooy euh, ca Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire Sane faaw ñu def appel doo parce que noonu la yëf yi tëddee. yëf yooyu dafa am fu mu war a jaar. pour ñu doxalee ko ni nga xam noonu lañ ko war a doxalee. Mm-hmm. léegi ñu daal di wax ne ñoom tàccu nañ bi nga xam ne bi tànn nañ ay gouvernement technocrate. Mm-hmm. jël ñoo xamante ni bi tey def respecté nañ seen kàddu mu ne tàccu na. mu ne waaye bii ni nga xam ne noonu la def maanaam récompense la gâteau la boo xam ne dañ ko jox dañ ko partagé maanaam euh, comme liñ jox Pape ak ay Waly Bodian mhm. euh, ak yeneen yi nga xamante ne bi dénkaane nañ ko ñoom jàppee na nañ ko ne lii kat ab séddoo la mhm. waaw mais ñoom ñoo gisee ni lii séddoo la mais man dama gis ni lii dafa nekk loo xamante ni bi jéego la pour écarter ñenn ñoo xamante parce que moom lim na sax ci biir nee na lu ci mel ni port dafa am solo. lu ci mel ni kii dafa am solo. Mhm. waaw léegi nag comme que defagoo appel d'offre da nga koy dénk koo xam ni jàpp nga ni kii nga koy dénk moom. Euh, du la fa defal la naqari. wóolu nga ko. comprendre nga. Mhm. maanaam dénkaane ba ba ngay yegg nag ci li nga xam ni moom ngay tëral. comprendre boo yeggee ci li nga xamante ne bi moom ngay tëral nga xam ne lii kat léegi tëral nga ko mhm. ba ëllëg si biir keneen kiy ñëw bu ñëwee du mën a def rek lu du topp ca la nga xam ne mooy yoon woowu loolu mooy li nga xamante ni bi mooy li gën voilà mais bëgg a taxaw nga fal ay nit defaguñ ñaari weer nga ne lañ waxoon defuñu ko déedéet hmm. parce que fi mu toll nii li fi nekk yëpp mooy nii la yëf yi war a doxee lii mooy loi yi fi nekk ci loi yooyu nag la ñuy sukkandiku ba def li ñuy def mais ci la ñuy fexe tamit ba dem fa ñu war a dem sopparñi yi nga xamante ne bi neexuñu leen li nga xam neexu leen nag bu boobaa mhm. buñ ko sopparñee bu boobaa kenn du wax dara ok du dëgg dëgg mais pour le moment lii moo fi ne ci mhm. lii fi ne nag ci la ñuy ne ba taxaw ba régler li ñu war a régler yëpp daa dee sopparñi li nga xamante ni bii nag tey euh, moom lañ kii mais ñi nga côté bi nga xamante ni bii tey comme lu jëm ci ministre yooyu lañ la waxoon def nañ ko jéego yi nga xamante ni moom la waxoon ne bu ñu yoree réew moom ne que ñi ngi teg jéego yi mu ngi leer ci yow. Mm-hmm. nga bëgg a taxaw bëgg a xarab lenn bëgg koo yëkkati def ko loo xamante ni bi mooy loolu loolu vraiment man damay jàpp ni jaaduwul. donc poli bu ñuy politique tamit mën ngeen a bañ a bokk gis-gis mais nag nañuy euh, honnête quoi. parce que lii ñuy wax nii ñoom moom mii xam na ko mais dafa bëgg gën a réeral nit ñi maanaam dafa am ñoo xam ne dañuy nekk ci télé yi rek pour rëndëmal xelu nit ñi jaxase xelu nit ñi loolu mooy doon seen liggéey ci télé yi mm-hmm. mais loolu moom bu yeboo ñu xam ni sénégalais yi seen yeewute moo tax ñu fal ñii nga xam ne dañ leen a diaboliser diaboliser diaboliser <laughs> jaxase leen lu ne bu doon ñoom dañoo war a xam dañu échoué parce que dañu jógoon pour diaboliser benn équipe boo xamante ni bëgguñu ñii accéder au pouvoir sénégale yi dégluwuñu leen mm-hmm. kon donc échec nañ voilà ñoom dañoo échec ñoom dañoo waroon ànd ak nguur gële bàyyi chronique <laughs> parce que dañ doon chroniquer pour diaboliser. ñi nga xamante ni bi tey ñoo yore nguur gi. tey jii sénégalais yi nee nañ leen yéen dégluwuñ leen bi sénégalais yi falee rek lañ leen folli ñoom yëguñu nag folleeku ne ñoom dañ jàpp ni président Macky Sall moo folleeku uh-huh. mais ñoom ñi doon wax ñëpp doon jañax nit ñi ci li nga xamante ni mooy continuité di jañax nit ñi ci système bi di xarab lii nga xam ne mooy waaja ñoom ñëpp sénégalais yi dañ leen a jël folli leen mais yëguguñ ñi ñoom folli nañ leen. ok voilà ñu daal di jàll directement euh, ci Cheikh Abdou Bara Dolly Mbacké temps bi moo ñu xaw a xoj moo tax ñu daal di jàll euh, ci Cheikh Abdou Bara Dolly Mbacké élément bi su paree rek ñu daal di koy déglu daal di dellu si waat ci plateau bi. yekk ak trang. Mhm. waaye tamit ñu bañ a moytu ñu moytu bu baax a baax a baax. li daloon Macky Sall dal leen. Mhm. xam nga moo ñu topp maanaam wax ji ci biti. ba tax ñu dugg si loo xamante ni mënuñ see génn. gis nga dinaa dox ñetti maanaam misaal yoo xam ne daloon nañu te ñu ñi bokk na si ñu ko gënoon a porté pour askan wi gën a bañ Macky Sall mooy luwaa ngóor jigéen bi. gis nga luwaa ngóor jigéen bi. Mhm. Ababacar war naa ñëw. ñoom bi ñu si ñoom ñoo ko porté joxuñu ko ñun député yi ñu defaraat ko déposé ko parce que ñun ñoo am sañ-sañu déposé ko. Mhm. temps yi dégg naa ci loolu nañu focus ci liggéey bi te bañ a tontu ah beneen bi parce que bi wat na maanaam loi bi am na fi ba pare loi mhm. dañoo wax ne képp koo xam ne yaa ngi si bit biir di def yoo xam ne góor jigéen ak continuité dañ lay mhm. loolu am na fi ba pare yàgg na fi nekk yàgg na fi ñun ñoo bëggoon lu tax nit ñi gën a bañ Macky Sall mhm. ñu jébuli si leen waaw politique ko <laughs> <laughs> xam nga man mi doon naa wax daan naa wax si campagne bii mhm. ni ko wate bulletin Macky Sall wate nga bulletin góor jigéen xam nga yooyu yëpp def na campagne la woon moo voilà jéblisation la woon bi ñuy dugg assemblée nationale tamit pour que maanaam wan askan wi leen gis ngeen ñii dañoo bañee maanaam wate criminalisation waa jigéen ñun ñoo ko defoon léegi ñu bañ a tàbbi si loolu xam nga tax war ñu see tàbbi mhm. mooy dafa beneen bi mooy gis nga affaire rapport Covid bii nga xamante ñi ngi wax 1000 milliards du dëgg. mais mais noonu dafa naan yow nga jàpp ne bu ñu criminaliser góor jigéen mën na mën na indi ay. mbicc ak mbaaru dama ne am na fi ba pare. loo am fi am ba pare. voilà merci beaucoup Modou di lay jëfal bu baax a baax ñu daal di ñëw euh, ci criminalisation de l'homosexualité moom la Cheikh Abdou Bara Dolly Mbacké doon wax euh, que ni opposition bi euh, moom maanaam seen combat woon ñu porté woon ko nekk voteel Macky Sall moo yaa ngi dooleel borom ñaari tur mu nekk mbir moo xam ne moom revenir at na ci. waaw moom dafa xamul li muy wax ni sëñ Abdou Mbacké Bara Dolly sama waay la mais xam nga day nelaw quoi. parce que li mu expliqué ak li am. Mhm. bokkul. parce que bu waxee ne criminaliser ngóor jigéen am na fi loolu amu fi te loolu mooy li nga xam ni moom la nit ñi doon xeex pour yóbbu ko assemblée nationale pour ñu voté ko léegi nag moom ci biir wax ji daf cee def noo xamante ni bi euh, jàpp naa ni baaxul mm. parce que moom maanaam dafa jàpp ni moom maman bi muy ànd ci yëf yi moom daf cee wane boppam maanaam bi muy ànd ci yëf yi ma riirandoo la te diaboliser Macky Sall rek moo ko ci dugaloon bul jël nag sa yow li la dugal ci combat nga bëgg a wax ne ñeneen ñi nga ko àndal ñëpp lii rek la woon maanaam dafa mel ni da ngay taq mën nañoo ànd man ak yow di xeexandoo lenn te bokkuñu ci ngëm-ngëm <laughs> effectivement yow nga gëm ci mhm. mooy li am sax ci jamono ji ñu toll ni am na ñoo xam ne jàpp nañ ni mhm. eh, xeex bi nga xam ne moom lañ doon xeex pour Pastef accéder au pouvoir eh, dañ cee war a jariñu mais jàpp ni réew am na ñoo xam ne dañu jàpp ni ñoom mhm. dañoo xeex ngir réew mi maanaam kon kii bokkuñu léegi na yow bul jël sa bosu bopp nga ne mooy bosu ñëpp généraliser maanaam peut-être moom bi mu koy def moom mën na am moom li nekkoon ci xolam mooy euh, diaboliser Macky Sall pour ñu bañ ko rek moom mooy li taxoon mu jóg moom parce que wane na boppam. mais nag am na ñeneen ñu mu bokkaloon xeex bi ñoo xamante ne bi ñu loolu nekkutoon seen objectif. Hmm. maanaam ñooñu li ñu bëgg mooy ñu criminaliser li nga xam ni mooy ngóor jigéen. Hmm. te ñoo ñooñu dañuñu ci. ñu ngi ci liñ nekkoon ba nëgëni. comprendre nga. mais dafa mel ni fi mu toll nii dafa bëgg a wax ne yëf yi jeex na ñooñu xam nañ loi bi fi nekk. Hmm. mais dañ ne li ñu bëgg mooy ñu criminaliser ko loolu moo taxoon ñu doon xeex pour yóbbu ko assemblée nationale moom mi euh, dem na ci dem na ci ci ay manifestation yoo xamante ni bi mais nag na wax ni moom euh, jubluwaayam lii la woon léegi na moom ginnaaw jubluwaayam moom Macky Sall jóge woon bi te Macky Sall dem na mhm. moo tax moom pare na ci yëf na xam ni nag les autres nekkul ni dañoo pare ci yëf yi waaw donc nag euh, bul jël sa bopp rek attee ko ni nga xamante ni mooy nit yëpp bëgg a jël ñëpp dëxëñ leen ci benn mbir ne ni ma gisee woon dañ gisee mhm. déedéet yow da nga doon riirandoo euh, dugg ci coow loo xamante ni bi xamu euh, ngëm-ngëmu nit ñi fi mu ci toll quoi mhm. donc moom na na wax boppam quoi parce que kuréel gi doon xeex loolu mhm. am na ci ñoo xam ne sax politique guñ comprendre ay nit diine lañ yoo xamante ni kii kon ñooñu diaboliser Macky Sall taxutoon ñu jóg voilà waaw te léegi ñooñu ñëpp jël na leen dugal leen ci benn saaku ne lii doo nga taxoon. Hmm. moom na wax ni loolu moo taxoon moom. voilà mi ngi doon nag merci beaucoup sa ñi lay jaajëfal bu baax a baax di jaajëfal aussi euh, ñi nga xam ne ñu ngi doon ñu bàyyi xel ak ñi nekkoon ci régi bi moo Modou Diouf euh, lay jàlloo ak ki nga xam ne rek moom mooy topp Fallou la ñu ngi jaajëfal ñëpp di leen joxaat dig daje ci beneen yoon ak euh, beneen émission ak yeneen yi nga xam ne rek dañ ko daal di waxtaanee.